plateau bi bu Bun Xataab boroom Kër Massar démb Kër Massar toj na Sonko toj na fa macha allah saa maa ngi koy nuyu hommage borom Thièskaay nuyu naa la nuyu sa bébé ak sa yaay euh, ajaratu. bu ci mhm. kanamee rek ñu ñëwaat ci beneen euh, Nepad bu bees. d'accord ci kanam mhm. tuuti lay euh, doon. incha allah ñu dem régi ñëwaat ma jigéen Diop Dieng Sall indil ñu actualité week bi. problème bi yaa ngay démarrer nag. actualité du week-end <laughs> waaw ajoatu euh, euh, euh, tey nag dañuy xel di waxaat rek si li nga xamante ne nii mooy dox si diggante ministre bi ak transporteurs yi ak transporteurs yi ñoom ci seen biir parce que ñàkk a déggoo daf si am parce que seen grève bi depuis mu door ba léegi gis nañ ni ñenn ñi dañoo dañoo boycotté ñenn ñi continuer di daw mais boobu ba léegi déggoo amul ci seen biir ginnaaw 23 mesures yooyu nga xamante ne ni Mansour Faye mm-hmm. mi yor wàllu transport bi jëloon na ko euh, ñoom nag ñu ñàkk cee d'accord ba waraloon ñu dem grève ñenn ci si ñoom sax euh, euh, sénégalais yi nekk fii ci mbir Ndakaaru sax ñu ngi commencé di coowaloo si seen biir parce que da ngay dugg si bus sax nga gis ni paas yi dañ koy yokk sans pour ñu aviser nit ñi te ministre bi waxoon na ne bu kenn yokk paas yi mais ñoom nag dañoo daal di teggi li nga xamante ne ni ministre bi wax na ko di dox seen i yëfi bopp ba waral coow li bëri trop ci askan bi euh, loolu nag mu des leneen loo xamante ne nii gis nañ ni fan yi ñaari fan yi ñu génn borom oto yi mm-hmm. ñenn ñi ci biir région yi sax ñi ngi commencé di kocc yenn oto yi di leen kaar di saccagé seen i oto ndaxte euh, euh, déggoo ñàkk déggoo bi nga xamante ne nii am na te loolu su amee rek mooy mm-hmm. ñàkk waxtaan moom moo moom moo am si seen i diggante mu mel ni nag askan wi gis nañ ni ñoom it am nañ ci ay jafe-jafe oma parce dem beeg dikk bi ni mu meloon fi ñu toll nii dafa euh, jéggi dayoo ci ay jafe-jafe soo xëyee fajar bi sax dangay gis euh, mbedd mhm. yi ak tali yi pour nga gis nit yi ni doon euh, faral di def di doxi seen activité sax certes hmm, transport dafa nekk loo xamante ne ni mhm. lu jafe am la si biir Ndakaaru suñu gisee ne nag yenn oto yi ñu ngi xel di bañ a liggéey day daal di gën a jur beneen jafe-jafe mu li ma ci jàngat mooy déjà ñun suñu nguur yi mhm. moom irresponsabilité moom dañ ko am moom danoo desee doon responsable parce que bu la jiitalee nag ci kaw ay nit da war di jël sa responsabilité ci lu mu ci doon mais nga yërëm leen mm. man mm, dama jàpp ni ñoom ñëpp tey ji lu tax grève bi ñoru leen parce que carburant yomb na leen oto yomb na leen ñi ngi dem di dikk mm. man égoïsme boobu laa mënta comprendre alors que yow fa nga ne oto bi askan wi ñoo la ko jox carburant bi ngay dawee askan ñoo la ko jox salaire bi ngay tiitaroo askan ñoo la ko jox kon askan woo waroo leen fàtte di nga da ngay romb Kër Massar ñaata personne ñooy taxaw ku ci mënul jël particulier mm-hmm. tey maa ngi dégg euh, benn clando clando moo fi taxaw foo xam ne ay 1200 la naan paas mu ne ku ne 2000 wala ñu bàyyi mm-hmm. maanaam amul nit ñi te loolu du ñëpp koy mën nit ñi dañuy rang ci tali bi dangay ngay midi day jot midi nga ne waa ah, kii moom taxaw tali ba heure bi kii moom kañ lay egg fa mu jëm bu eggee la mu doon lijjanti est-ce que dina sotti maanaam conséquences yi day bari léegi nag beneen bi topp ci conséquence mooy transporteur tey yërëmuñu chauffeur oto yi mais aussi tey yërëmuñu apprenti yi. Mhm. da nga ñëw fekk ñu ne layam man dama dem ba ci benn apprenti ma laaj ko jur yi ngeen dul liggéey est-ce que da leen jox dara mun a dara ma ne ko mais yéen kon yéen da leen di sacrifier maanaam ñu ay boroomi doole ñooy xeex ci kaw li naan bu dee ni ñaari ñay yi dañuy xeex eh, ka ka cay yàqu la rek mooy bërëb ba ñuy xeexee. Mhm. ndaxte moom la ñuy yàq kon lii lépp day daanu ci kaw néew di doole yi. léegi nag état bi taxaw benn taxaw na du waxtaan a gars yi mais danoo war a waxtaan ñu trouver solution ku ne am lu mu bàyyi parce que xëccoo bu amee ku ne day am lu mu bàyyi pour que ñu mën a continuer mais li ñu ne nii mënu ko léegi mu mat semaine ñiy grève nguur gi tëxlu bàyyi Sénégalais yi ci situation moom loolu dafa metti dafa tar. Mhm. teg ci économie réew mi sànq ci journal bi Bilo Diallo mi ngi wax ni Kolda. comme dafa am marchandise yoo xam ne xam nga ñun boo nekkee Dakar yu bari doo ko xam. dañuy jóge fii. ñoom moom lañu dundee maanaam di ko dundee. Mhm. léegi mënatul ñëw ndax oto yoo leen doon indi yu bari doonoo gréew. teg ci guddi mais dafa dem ba ci biir ménage yi ci yenn ñu war a toggee parce que ci zone des Niayes bi. Mhm. la légumes yi doon jógee ak yooyu. léegi mënatu fa dem. mais loolu est-ce que dafay continuer. Mhm. mais dem ba ci station euh, essence yi ngay gis mais niñ doon liwee. jaayee mais mënatuñ ko jaaye parce que bu dee ni oto yëpp dañuy daw normalement mais dañuy jaay normalement maanaam conséquences yi yamul rek ci ki bëgg a dem bëgg a demul mm. mais conséquences yi même sur le plan économique daa am lu muy wàññi réew mi mm. loolu nag ñi ñu jiite ñoom ñoo war a jël seen responsabilité xool na la ñuy saafaraa lii mm. parce que bu ñu jàpp ne ñoom am nañ seen i di ko dawal di dem di dikk rek bëgg a bàyyi askan ci coono loolu nag des fois tamit bu ñuy critiquer nguur te mooy da nga ciy ànd mm-hmm. parce que lii mës ta ci Sénégal une semaine ñu nar koo gréw ci ay oto benn état taxawul waxtaan ak gars pour ñu dakkal ko. Ah, mais est-ce que du seen ñàkk déggoo ñoom. si non du ñàkk du ñàkk déggoo. Mm. di nga responsabilité la Mansour fay ci njëlbeen la yàq wax ji mooy dem leen grève maanaam waxee dënn waxee xol. nit ki nag bu dee nit ci alalam la yor yor lépp loo xam ne moom moo ko oto moo ko moom mooy jënd carburant moom moo xam la muy dajeeg loolu lépp ji nga ko daaf ci am loo xam ne. Mm. da ngay neexal nit ki wax ak diplomatie. Mm-hmm. ji nga diplomatie dafa baax ci loo gi ci àddina. mais am loo xam ne boo ko waxee nit ki rek jot jikkoom. Mm-hmm. transporteur li ñuy dund neexu leen. Mm-hmm. mais danoo ñëkk te kilifa du ñëkk. déedéet. su koy yaa ngi wax tout à l'heure que ni Thiès sax. Euh, dund nañ moomu. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Euh, sànq rek maa ngi leen di dégg ci li nga xam moo di journal bi ñi ngi am problème foofu muy diggante ñi nga xam ne danoo nangu di daw fii Dakar am ñoo xam ne nanguwul ñoom ñaar ñoom ñoom ñoo ci doon xeex ba am ñoo xam sax jàpp na leen ñi ngi fi nga xam ne moo di police di wax ni que maa jigéen. Mm. lu waxtaan lu waxtaan lalul communication lu mu lalul baaxul. tey boo jàppee dara ma jàpp dara te communication amul rek boobaa li ngay téye day gën day gën a metti man li ma téye day gën a metti muy diggante chauffeur si ak ki nga xam ne moom moo di man Mansour hmm. moom moo nekk ministre moom moo war di gën a euh, bàyyi xam nga tey euh, ñun ñooy dem ñun ñooy kii moom fu mu bëgg a dem dina fa dem njabootam fu mu bëgg a dem dina fa dem hmm. euh, ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci mbedd mi ñu ngi ci biti dañuy dem liggéey wuti lu ñu am te ci oto la ñuy dugg donc loolu boo ko amulee ñu grève yow yaa ngi wuti loo xam ne danga koy jox sa njaboot amoo ko mënoo dugg ci oto mënoo dem ci fen parce que oto yi danoo grève donc moom mi nga xam ne moo nekk ci euh, nguur gi yore euh, di di yore li nga xam ne moom moo di mbirum transport na am noo xam na ko defee te waxtaan ak ñoom communiquer ak ñoom su ko defee jàmm mën a amaat parce que tamit métti am na ci ñu mu métti am na ñoo xam am na mais déggoo moo déedéet ni mu waxee la mange ci mm. commencement bi mm. ni mu waxee dafa wax ak dënn mm. xam nga tey su ma ñëwee tey nga yore dara ma ma wax la ko ak noo xam ne bu yàggee dinga am noo xam ne da nga koy gisanteeg man mm. te du noonu tey bu ma defee nii rek mm. nga defaat nii rek day daal di metti te noonu du àdduna mm. àdduna communication rek lu amul communication dara du dem d'accord mm-hmm. Alaaji nga li nga xamante ne bii de moo xew ci réew mi euh, réew mi moom euh, dafa mel ni réew mu doxut euh, lépp a taxaw mm-hmm. waaw ni oto taxawee ni la réew mi taxawee parce que gis nga am réew dafa am yoo xam ni waxtaan mën naa defar lu bari. gis nga li xew lépp li ko indi mooy accident am na ñu mel ni ñoom dañoo yeewook seeni dogal yoo xam ne dañ koo dencoon ci trois yi ñëw génne rek dóor ko sëfoor yi te mbir mi warta tëddee noonu parce que buñ ko dóoree sëfoor yi dafa mel ni rek dañ ne leen yéen sëfoor yi kat yéen ñii yéenay responsable lu accident yi yéen dong la te mbir mi nag. c'est du doon sëfoor yi kese. Mhm. ñu bëgg a jël lépp sëf leen ko. Mhm. waaye aussi tamit dafa am ñeneen ñoo xamante ni bi ñoom lañ bokkal mbir mi parce que sëfoor day dawal. Mhm. te lii ndax normal na wala normalut ñaareel bi. li ñuy wax naan ay montage yi. dañu war a xool montage yi ni nga xam noonu la war a def que ñoom bi ñu fi séddee ci jamono yi sëfoor yi bi ñu waxee ne montage yi dañoo bari. léegi safoor yi di jàngal policiers yi ni ñu war a monter. Mhm. loolu xam nga ni mooy réew mu tàj réew moo xam ne safoor yooyu naan montage bi dafa bari mhm. nañ ñu defal diggante ba fii ñaari montage ñetti montage loolu moo warta demee noonu mhm. te yooyu mooy yi nga xamante ni bi tey noonu la yëf yi demee beneen bi muy Mansour Faye mi nga xam ne bi ñaari catastrophe yi yëpp amee nga xam ni metti na loolu ci réew mi gis nañ fi Diouf Sarr bërki Dembo Ndiaye ba mu amee ca Linguère dellu am ca dañ koo wàcce kii mu am ca Louga kii ca ca fële Sikilo ah yoon Kaffrine ñëwaat am ca Louga muy ñaar yoo xamante ne bi am na te li bii def bële def yële defuñu ko woon ba noppi waa ji ne moom du démissionné te ba noppi kenn mënut ci moom dara te buy wax ak nit ñi wax ji neexut loolu mooy yi nga xamante ne bi mooy problème yi mm-hmm. parce que ak nu mu mën di demee tey bu ñëwee gasoil yokk na ñëpp a ngi séentu ni paas dana yokk waaye bu fekkee ne dañ ne gasoil yokk na ba noppi ñu ne leen du ngeen fi yokkee. Mhm. loolu problème yi démarré na. mais alaaji war nga wax ak borom bus yi nag seen yokk bi. non yokk bi jaaduwul waxuma man dama ne moo moo tax ma ne yokk. boo leen boo leen teg ba pare d'accord guñu ñoom ñu jël seen ay décision non boo leen tegalut yokk ñoom ñu yokkal seen bopp yokk nañ ko moom waaw te bu ñu yokkalee seen bopp day gën a métti ci client yi parce que yokk bi du ànd ak xam-xam mm-hmm. te aussi yokk bi est-ce que ah? yoon la borom oto yi tamit di kar yenn borom oto yi di sakkaane non non borom oto yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom dañoo mënta grève xam nga tey du ma daw. bu nga ne du ma waaye bu du ma daw ba noppi yor saw yet di wër tëli bi. loolu moo dut yoon. parce que tey. Hmm. bu fekkee ni ñoom dañ ne mën nañu grève ba ne ñoom dañoo représentativité kërëb kërëb ñun bu ñu gréwee nit ñi yëg ko yow gréw nit ñi yëg ko ñu tëddal sa kër. Hmm. di déglu rajo waaye gréw yor sab yet di wër oto buy yet. dëgg xam nga loolu moo lay wan ne la ñoom ci seen jëmmi bopp rek xam nañ ni seen nekkin dafa doy waat parce que sëfoor benn waaye wax na ko keroog Euh, bi accident yi amee waa ji mu ne moom sec aller retour mu versé sa mu versé transporteur am trois cent cinquante mille te nee na cinquante nee na te fukki junni lañ koy fay par weer. waaw loolu seen diggante la ak. transporteur mais mais mais mais yooyu yëpp état daf ko. amuñu dara daf ko war a taxaw dara amul texte amul dara xam la mooy sunu problème. loolu aussi xam la mooy sunu problème réew mi. dafa am yu bari yoo xam ne état daf ko war a lijjanti. gis nga fi mu toll nii bëti nit ñaa ngi nii. di jaay ay terrain ci prix yoo xamante ni bi teguwut fen mm-hmm. maanaam nit ki day xool bu ko neex rek daal ne <laughs> sama terrain bi de maa ngi koy jaayee cinquante million mm-hmm. fu mu ko teg mm-hmm. war sa demee noonu réew mi état bi dafa mel dafa abandonné bàyyi ñu bàyyee ñu ak euh, borom doole di massacré gars yi ajuma Touba ah, moo tax nit ñaa ngi bëgg six mille yi doon li yabe six mille xam ñaata doon jëlee nit ñi dix mille francs waaw lool waaw parce que bu fekkee ne bu fekkee ne leer na leen moom affaire bi manqué na li Omar wax mooy ñëw. dañuy abuser. bu da ngay gis oto yuy daw mais à quel prix. ña ña ñaata la nit ñi di fay parce que bu fekkee ne bi foo xam ne ña ngi doon wax 600. ñu ñëw ne la 2000 boo mënee yëg bu tabaski jotee saa. boo waree dem Thiès rek dinañ yokk dinañ ko def noo xam ne du naka su dul noonu. ñoom it war na noonu donc li am solo daal mooy. Eh, man daal li may wax mooy. Mhm. état bi na gestuwaat askan bi. Ah, doy na waar de état te xam ni. lépp loo xamante bi que lépp ci coono ci askan wi rek lay dalaat. Mhm. parce que sëfoor yi. Mhm. seen coono gi askan wi lañ ko wéer. Mhm. askan wee koy si biir. li Omar wax tamit loolu am na muy kii yi nga xam ne emprunté yeeg yooyu nga xamante bi tey ku emprunté luye sa kër weer wii. na nga ca garage ataaya rek loolu day continué loolu mënu continué na nga ko ko lebal. voilà borom kër yi lebal <laughs> xam nga tey ci suba rek am na ku ma doon waxal mun a ma yow fan yi ñaata ngay fay ma ne ko man zone de captage ak Walfadjri maa ngi fay cent euh, mille cinq cent. Mm, te autant mille la woon. mais léegi boo waxee dañ lay wax ni. non loo xam ne mën nga ko dox. ñoom xam nañ ni soriwul. Mm. mais pour di pour pour te dire que ni rek même bu état mënee régler benn côté bi beneen côté bi mun ko régler parce que ñoom chauffeurs yi. ñooy def li leen saf. Mm-hmm. et puis man mënuma concevoir yow da nga grève grével toj ko oto bu la romb nga wàcc ay client am mais mais dans quel pays sommes-nous <laughs> li état war a def moom li ma la wax keroog moom laay waxaat gis nga bu la jiitalee bu la jiitalee ah, loolu de lañu waxoon ñoom dañ ne woon dañ koy alkaati ñi ngi si ñi ñi leen neex non non ak gis nga li ma waxoon li ma waxoon moom laay répété waat bu la dénkee jiital la doo ragal mm-hmm. ay mesures dañ ko war a respecter mm-hmm. gis nga tey ci suba dama taxaw sama buntu kër di jël taxi mm-hmm. rapide bi ma romb non seulement ñi ci biir taxaw nañu ba doyal mais ñay lang sax ça veut dire bu rapide bi daan woon maara dégg mais nag ci am na loo xamante ni ni nit ki lu mu nangu teg ko ko dagan na man du betti du ma gis oto bu fees ma ci du merci beaucoup bay lang non non boo amul nga xaar ñëpp xam nañ ni dëkk bi demee boo amul da ngay xaar boo amul xaaral mais man du ma dugg ci oto di risque sama bakkan nga doxal waaw kay danga boo waree liggéey nga woo nga war a liggéey ni mun naa ñu ko mën mais man dangaa war a xëy à taw parce que si sama bakkan bi moo ma gënal fukki liggéey waaw man loolu de leer na su ma mënta ñëw de man la mënumaa ñëw non kenn waxul loolu yow it daw ko liggéey dama romb garage garage Kër Massar ma gis Njaga taxaw ak yenn oto yi mais dama ni client ñoo waroon gréw maanaam client yi mhm. yenn oto yi dama war a jógee loo xam ne état bi du wàcc ci terrain bi diñu ko fajal ko fajal mhm, mhm. Ah, yàlla métti na mais mais nag dafa am loo xam ne béti hmm. état a taxaw comme ci ban côté waaw parce que dafa am loo xam ne wallaahi azim yow lu waayee baa ngi la ñuy commencé wàññi non non état daf ci war a nit ñi bu ñu génnee ñu bu fekkoon ne bu fekkoon ne montage yaa ngi ci 250 000 ah, lañ teg léegi de bu dee 200000 ñu ne 250000. gis naa ko fii waaw kay. 250000 nga doon wax waaye bi daa yokk 250 non bu dee 200000 deux chambres salon. bu dee ci alentour yi 250000 lañ lay wax ndax nee na di président wax dañ ciy wàññi léegi kon 250000 bu ñu ko wàññee kon loo ciy looy fay. 200000 yow yow yow deux chambres salon nga wax fii ci gannaaw Walfadjri immeuble bi ñu doon xaar. ñun ñëpp studio 250000 la wax. studio laa wax ma deux chambres salon de. ayca looy tëjee doy na waar ajarut en tout cas métti na. studio ba métti na torop yàlla ñu yàlla suñu boobam defal jàmm rek defal ko ñëpp damay damay mastaw euh, accident bi amoon ci booru Louga. suñu benn waa koñ def see bokkoon. Oh ah, massa billaay ñaari tànk yi ñoo ñoo ñoo damm. billaay euh, moom suñu koñ la dëkk ma dëgg yàlla awa maa ngi koy ñaanal. jigéen la jigéen la jigéen la am na. doom sax bu doomam ji bi ñu koy may yàggul dara après xew lañ doon dem i pare. suñu accidenté maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla suñ boobam defal jàmm. démb la ma ko sama yaay di ma di ma ko soog wax. métti mhm. na trop mais bon yàlla baax na. yàlla mhm. na leen yàlla defal jàmm rek. may ñëpp wér di leen jox dig daje ba jeudi incha allah.